rahmatullah Seydina Mohamed Mbaye président CRFP Thiès waa ndaje bi dafa doon loo xamante ni ñun ñoo ko sàkku pour euh, defar suñu environnement bi nga xamante ni fi lañ ñëw pour sàkku su xam-xam aussi pour raffermir les liens entre euh, élèves maîtres te euh, en général comme ni ko tubaab yi di waxee un un esprit sain dans un corps donc loolu moo tax ñu ni comme fi ñuy jànge yoon la. comme on est dans des période en tout cas de de de l'environnement on tey ñu jël journée bi def ko si wàllum euh, sesetal euh, ak euh, jëmbët ay garab dafa préparer affaire environnement bi loolu moo tax ñu ñu woo avec la bureau comme ki gis nii sama wet comme ça ñu ñu jëmmal bis bi quoi. andu nettoyé nañ rebooru kii bi rebord alentouru CRFP bi nettoyé nañ si ginnaaw nettoyé nañ également salle de classe yi nga xamante ne fa la fa la ñuy jàngee nettoyé nañ aussi devanture bi comme booy dugg fii nii. aussi nettoyé nañ les les toilettes nettoyage général avec les filles nettoyé nañ aussi suñu coin restaurant euh, restaurant bi bi ñuy lekkee ak euh, une partie de de de l' administration waaw foofu lañ doon nettoyé quoi. ëmboon trop parce que man vraiment sax dama dama kontaan trop ci seen ci seen seen engagement parce que euh, bi ma ñëwee gis élèves yi bari daanaka ñoom ñoo ñu ko gën a bëgg ñun bureau bi loolu laay wax SG léegi man ko bi ma ñëwee gis gars yi fi mu toll nii amatuma sax lan laa lan laa war a wax donc taxaw nañ taxaw bi ñu war a taxawee ñoom ñëpp ñu ngi leen ci sant aussi de passage. ak aussi reboisement bi tamit wax naa la sànq ne def nañ ay reboisement SG bi nga ma koy signalé léegi donc gannaaw bi ñu nettoyé alentour yi ñu la wax noonu fenn fu ne jéem nañu fa samp ay garab ndax ñëpp xam nañ njariñu garab ci ci ci ci ci dundu doomu aadama bi donc ñu boolee action de ak sociale daa pour pour le développement du CRFPE. 48 heures lañ koy def pour tey jii le 7 bi ak le 8 léegi tey dañoo woote woon comme li nga gis nii yëpp defar beeg euh, reboisement bi. ak togg bi après añandoo ensemble suñu biir raffermir les liens waxtaan bi après bu subaa incha allah ñu dem ci la journée de la femme incha allah. message bi du lenn lu dul euh, gën a ñaaxaat élèves maîtres yi ñu gën a ànd bo booloo lii rek mbooloo la déjà ñu gën a ànd euh, soxla si parce que fii boo seetloo arabisant mi ngi français mi ngi fi mais tey du feeñ ñun ñëpp ñoo àndandoo di liggéey tey donc ma leen ñaan ñu gën a ànd si liggéey bi bu ñu àndandoowee rek incha allah formation bu baax te ñu bëgg nañ ko defandoo incha allah. merci beaucoup jërë ngeen jëf. Aminata Diouf président de la commission féminine. voyage bi amal nañ ko euh, tey euh, muy góor ñi muy jigéen ñi ñun ñëpp tey ku ci nekk ñëw nga ñu dugg ci ruqu yeeg ruqu ruqaat yeeg yëpp bale ba mu set. Euh, def aussi li nga xamante ne nii moo di reboisement def lépp lu nga xamante ne ni daal buñ ko defee centre bi dina am hygiène bi waa ak. assainissement voilà pour que ñu mën a nekk si dans de bonnes conditions. bien sûr bien sûr parce que fii ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp benn lañ fi góor di teg tànk fa la jigéen di teg tànk voilà donc lu ñuy defandoo dañ koy defandoo ñun ñëpp xàccandoo dóorandoo. bon nettoyage comme ni ma la ko waxee rek c'était benn benn groupe la woon ñun ñëpp def nañ ko amal nañ ko léegi nag jigéen ñi buñ nettoyé ba pare dañuy jàll ci li nga xamante ne nii moo di euh, cuisine bi. togg parce que ku nettoyer aussi sonn nga soxla nga ñu ah toggal la nga lekk reprendre say force voilà pour que daal yendu bi aussi mën a neexaale. suba aussi euh, journée bi day continuer suba war nañu amal yeneen activité yu ci mel ni ay don de serviette hygiénique au femmes parce que tamit euh, loo xamante ne ni la dañ koy soxla euh, ak. conférence pédagogique boo xamante ne ni dañ koy def. ak euh, match de gala aussi prévoir nañ ko. ak dîner bi le soir. pour terminer en beauté daal xam nga rek bégal xol yi ci la bokk. Hmm. aouzu billahi min ashaytan arrajim bismillah arrahman arrahim wasalaatu wasalaamu ala xabibihi muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashaabu man tabiahum bi ihsaan ila yawmi ddin rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli yaa asalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu yaa ixwata al aisa innana qad taxshatna huna fi hadihi al buqaa wa huwa markazu li takwin al tullaab al mutaallimin wa li hada al yowm ahamiya kabira jiddan xaysu fiihi nashaataatun kabira wa kathira aydan ala sabili misal tanzif al buqaa wal markaz وأيضا تشجير بعض الأشجار حول المدرسة ولذلك أهمية الكبرى مثل ماذا فس المرء بيئة السليمة يعني أن يعيش في بيئة الصحيحة والسليمة أيضا قديما قالوا العقل السليم في الجسم السليم ولكي يجد الإنسان أو المرء الجسم السليم لابد أن يعيش في البيئة السليمة ولهذا نحن نهتم اهتماما بالغا لتنظيف هذا المكان الذي نتردد فيه يوما ونهارا وأيضا لتشجير بعض الأشجار هذا ما يوفر نشاطات كبيرة حتى إن المرأة إذا وقعت أعينه على هذه الأشجار هذا يسبب نشاط في عمق قلبه وأيضا هذا يسبب أيضا الحب فيما بين وإن من أهمية هذا اليوم أيضا توطيد العلاقة فيما بين المتعلمين حتى أن نحن اجتمعنا هنا كل واحد منا ينظر إلى أخيه منظر الحب أو نظر الحب والحنان والود وهذا أيضا تأثر كبير فيما بيننا ولهذا نحن هممنا قلنا للبنات طبخ بعض الوجبات للطعام وهذا أيضا مما يوطد العلاقة فيما بيننا وعلى سبيل لتلخيص الكلام نريد أن نقول فقط أهمية هذا اليوم لا يحاط حيث فيه كثير من الأعمال والنشاطات الكثيرة يغتنمها المرء لتوطيد العلاقة فيما بيننا وأيضا لبذر الحب في قلوب الناس هذا مجمل ما كنا نريد أن نقوله إن كنا قد أخطأنا في الكلام فسامحوني وإن كنا قد أصبنا هذا توفيق من الله وآخر كلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته